la la لا لا لا لا لا لا gàttal daal moom la ñu xolam sedd na guy ndax lam njëkk a wax daa wax ne yéen taalibe yii na ngeen sant yàlla na ngeen sant Serigne Touba na ngeen sant Cheikh ma Paate na ngeen sant Cheikh Kara bi ma naan ndax damaa jëlee lii mu def nii waaye yéen ñii ñëpp kenn ku nekk njëriñam tey ak ëllëg lépp mu ngi ci biir mais dama leen di misaal leen kenn ku tabax jàkka. yërmaane yi sëriñ bi wax ak yàlla wax ci ci jàkka jëwër ak kenn ko jox benn mosub luñ dogoo yéen yi sëriñ borom wax ci kenn ko jox jàkka jëm képp xoolal na kon lii ñu ko séddale kenn ku nekk taxawaay ku tabax jàkk kenn ku ci mos ko taxawaay ku tabax jàkka kon noonu nee na yu woowee ku tabax jàkk kon bool yi toll na yiwu toll ku tabax jàkka mel ci wenn fépp gu ne mu teel teg ci ne Cheikh ma paate moo ko sa bàyyi ko sa maama ko àndoon di ko indi fii di fekk maam Thierno bi fi jógee sa waajuroo juróom ñeent fukki at mu koy indi fii di fekk ay magam bi fi jógee nga ànd ko moom di ko indi fii nee na nag ñoom daa jëlee la ñu loola la jiitu yow nee na fekki ko waaye la fa ko jiitu lépp la muy bari bari bari ak lu yóbbu yi lépp bari lépp nee na boo doon benn def nga fukk benn ba ñooy ñoo def nee def nga fukk kon nee na loolu sant la gërëm la mi ngi lay ñaanal lépp mi ngi lay ñaanal ab jullit dana ko am ab taal bi ko am di ko am yàlla boo ci gën ëppale nee na it moom nag sàkku yow ñoo lañ ko woon liggéeyal di ko liggéeyal maam fi nga di ko liggéey nee na liggéey ba nga koy def yiwoo ñëpp xaj na si ko yiwoo ci gàttal daal sëriñ bii ndax man sama xol daa fees ba la ma waroon wax lépp sax mënu ma ko wax moom gën a sëkk ndax euh, kenn ko ne xam na ni euh, Serigne Touba lam am kenn wu ci borom daru kenn ku ne xam borom daru lam am kenn wu ci serigne ma paate rek doyna ci gattal dal non la ko serigne bi waxee waaw wax na ci wax deug yalla xolam sedd na guy xolam sedd na ci yow ndax man tok naa man fu kenn wu man ak mom ak yalla mu wa serigne Kara Sylla kuñ nangu ak talubem la ndax da ko jëf wax na mako budul ben du ñaare man ak mom ak tayit te it nako kon nang ko sile ñi ngi ñaan rek yalla guddal saw fan yàlla yàggal la fi taalibe bi topp sa ginnaaw kenn ku ci nekk la mu yaakaar ci yow ba tax mu jox la boppam yàlla na ko yàlla jox lu ko ci yàlla jox lu ëpp njortam ci barke Sëñ ngeen jëf ñu ngi wax alhamdulilahi rabbil alamin ndax yàlla ci kàttanam lanu def ay jullit ci kàttanam it lanu def ay bi ci kàttanam lanu booleeg borom daaru waaye ci baaxam lan boolee ci sëriñ paate borom diwaan sant yàlla bu baax bi ma yàlla boolee ay nit ñu baax ñoo xam ne li ma bëgg bëgg nañ ko fi ma jëm ànd nangu nañ fa ànd ak man muy sëriñ tubaa xaadim rasul di leen wax ne leen la ma leen daa rek laa leen di wax sëriñ bi dafa baax rek waaye man de su ma fa teewoon te ñemee jël kàddu ci kanamam dama koy wax ne ko sëriñ bi bu ma ñaanal ñaanal taalibe yi kon loolu laa koy wax ndax ab sëriñ moom <clears throat> jënd ñaanal ndax nit koo xam ne balaa am pas-pas pas-pas yu doomi jàmbur yi lay dajale kër sëriñ yi baay kër baayam ba mu def aw say mu takk mu takk ko ba mu dëgër mu yanu sukk fi kanam sëriñam ñu soog ko ne yaakaam pas-pas balay mën a joxe addiya day dajale addiya doomi jàmbur yi ci kër baayam boole koog la mu yor akus néew def kaw say indi fi kanam sëriñam ñu ne ak ak ak ak ñi mi àddiya nga xam ne lépp luñ ko waxal doomi jàmbur moo tax ñu waxal ko kooku kon jërul ñaanal ñu mat a ñaanal mooy taalibe yi nga xam ne suñ manee ma man suñ amee ma am yàlla na leen yàlla jox ay milliards yu ngeen liggéeyale Serigne Touba ci barke Serigne Touba Xaadimu Rasuul ngeen bàyyi xel nag ci lii moom dafa muroog ak taalibe nuñ koy jànge rek ah, euh, bis bu ngeen gisee seen bopp ci lii rek li ngeen defoon yàqu na ngeen mel ne ku defu dara na mel ne ñëpp a leen man bu leen defe ne seenub sëriñ a gën kenn bu leen defe ne yéen a gën kenn waxtu bu ne daal kenn ku ne na defe ne bu ñu doon tànn ku yées ci yoonu murit day defe ne mooma na defe ne mooma loolu daal daal leen di digal bu fekkee nag man am naa ngërëmul sëriñ tubaa te jaarale ko fi ma ko war a amee muy Seex Ibra Faati maa ngi leen di dogul ci barke sëriñ tubaa yàlla na ngeen bokk ci liggéeykati sëriñ Tuubaa yi Euh, la ci des mooy bu ñu waree ba ca ngoon dañuy liggéeyal sëñ bi des yi des yi des yi des yi liggéey bi dañ ko yóbbu ñu fexe ba di ñaan ba ñëpp kenn ku ne na la fi na la fi takku sant waaw ñu ànd dem yóbbu ko la ca des it euh, dañu am ab site bu ñuy wax diwaan si la TV diwaan si la TV mu ngi nii di ñu jàppale ci sunu liggéey kanee sëñ ma paate léegi sëñ ma paate ñëpp xam nañ ko te ñoo tax mboolem lu ngeen bëgg ku leen ko feeñalal ci ci ci lu baax ci li ngeen di liggéey sëñ Tuubaa ñoo koy feeñal ma bëgg nag yéen ñu yaakaar kër gi ku am ngénte sax nga woo la ngay fay keneen nga fay ko ko ah ku am màggalit nga woo la nga xam ne da koy fere ci keneen nga fere ko ci Diwane Silla TV ndax mën nañoo dem dema dem ba amub télé waaye loolu nag yéen ñi ci seeni loxo la ne wasalaamaaleykum